allo. allo. Kounkandé. oui. yow nga ne loo wax. nga ne da nga fiy ñëw ah. yow nga ne sëriñ ñu kenn amu fi jinne. xamoo leen dara te leen ñëpp laa wax waxum bàyyiwuma la yow bàyyiwuma keneen. da ngaa ma wax. fekk man xamal la moo gën a métti. non man dama laa laaj rek da ngaa li ma wax. dama xam ne yow bu ñu jàkkaarloo mën a yow wax. loolu nga wax léegi da ngaa ma wax. Simbo wow yow laay Simbo <laughs> kunkande Yang ngi créer sa bopp ay noon kunkande mag la def xale nag xale nga mag mag mag bu tolloo fenn top lo mana nak yow bañu attaque bañu bañu guerre ma nak yow <laughs> kunkande barki borom touba la lay 2 jours la lay garantie ma ma man ngay wacce barki borom Touba maam Cheikh Rafal Kunkande boo amee si soo amee si. barki maam Cheikh boo si amee jàmm mën ma tëdd sama ndey. damay rëkk ba pare xolal. Mhm. si Zahir laa la wax de Zahir rek de. waaw. xeex man ak yow loxo loxo rek. man du ma xeex ak yow. man ak ma xeex ak yow. man du ma génnal fi nga nekk dafa lëndëm ma gis la génnal fi nga nekk dafa lëndëm demal fu leer. yow da nga ne ñeme nga kañ ñëwé nga fu leer da nga ne yow am nga ci net lo nga wax. yow bi nga man gisuma la di do gëna wax ak man waaw wala ma ragal. bu yor ci net du lamb ba yow xamoo dara yow nga yow nga ci net. ku yor ci net ah. ku yor ci net du taal ah. xanaa loolu xanaa loolu moom xanaa loolu moom sa pouvoir bopp la loolu sa pouvoir ma yow xam nga yow xam nga xam nga la may problème ñu waxtaan ñu waxtaan déglu ma rek danga may déglu ñu waxtaan man man bureau bu may liggéeyee laa nekk damaa bëgg nga déglu damaa bëgg ñu waxtaan waa très bien génn nga xool yaa may dégg déglu ma xoolal damaa bëgg ñu waxtaan déglu ma bu ngaane bu ngaane waa xale laa man nangu naa man xam naa ne xale laa xoolal man xale bu ndaw laa nga yow da ngaa baatin ci li nga wax baatin wax ndax xoolal du ma sol benn déguisement bétis du ma ko ah, bi xoolal man ni laay sol xam nga yéen xam nga yéen la moo leen sonal lii moo leen sonal lii habillement moo leen lii laa sant te sama bureau laa dama damay liggéey nii lii laa sol. Ah, non la waa xam nga ay dara bu rëy dara bu rëy jarul jaay fer dara bu rëy. te amul sama papa nga amul problème nangu naa sama papa nga. nanguna naa par san sa ga san sañ dafa rafet sax waaw waaw sa daamine daa baax daamine gi dafa rafet. loolu wa sa papa papa nga loolu nanguna ko mais da ngay a am dom jo xam da na jaxal jaaxal lu lay problème da ngeen di nangu seen doom dafa jub da ngay di xam ne seen doom <coughs> seen doom seen doom lu mu yor wa ya, loolu nga fokk motax may la yow don kon kon yow kon yow man mënoo waxtan ak man yow bu nekk yow ne nga féticheur nga xam sama baay. waaw. yow léegi léegi léegi sëriñ bu ci mer xamoo dara da nga cay mer ku ci mer rek xamoo dara waaw léegi ma xamal léegi yow papa yow waaw léegi xaaral bàyyi ma sagal la bàyyi ma wax la benn affaire ma wax baat comme que nee nga sama papa nga ah léegi ma wax la baat tey yow da ngaa yor say fétiche n'est-ce pas ngay jinne. man léegi pare nga pare nga pare nga waa léegi pare nga barki maam Cheikh Ibrahima Fall ak ma tëdd ak sama ndey laa la wax ak ma suul sama ndey su ma la bëggee wàcc ci kaw suuf du mat 24 heures ma tëdd ma tëddal xaj su ma la dul rey nee ma nee ma Seydou ak ma tëdd ak sama ndey laa la wax bu la boo wédee li may wax ñëwul ma tegal la ay junni déglu ma ak ma tëdd ak sama ndey laa la wax caaxaanu ma man ñëwuma pour foo dama lay wax damaa indi damaa yor lu wóor damay liggéey soo wéy li ma def ñëwal sama kër ñëwal sama kër déglu ma eh tëj leen génn leen fii xamal laa bëgg ñëwal sama kër ma wan la vidéo ñi may wàccee su ma la xam nga envoyé vidéo wóorul mën naa la envoyé vidéo yi ndax ay vidéo jàmbur mais dama bëgg nga ñëw sama kër ma taal sama téléphone tegal la vidéo yi may liggéeyee sacrifice yi may liggéey lépp nga gis su ma la waxee kunkaane su ma la waxee su ma la su ma la bëggee wàccee doo du mot 24 heures dund ko barki maam Cheikh yow xam nga xam nga tey ma xam benn affaire déglu ma da may déglu rek da may déglu man ma xam benn affaire eh te mooy jàng lan may lan may kabada lan may kabada kabada léegi yow tey waxal benn affaire yow man da nga may posé ay question wala léegi da ngaa bëgg yow yow yow yow yow la mooy sa problème gis nga bu amee doom bu ngeen amee doom. non damaa xam ne. da nga may déglu da may déglu. gis nga xoolal sorcier. sorcier bi nga ay noon parce man sama papa sama papa di ma créer noon. sorcier dafa nar a sànq. nga dafa ma nar a sànq man. barki yonent Yàlla léegi ma la réer léegi xam nga réer mën ta weesu xale bu tolli man barki mam Cheikh Rafal wa aca léegi jëlal sama turu papa sama turu papa dam gawlo sekk la sama yaay mo ngi tuddu yeye nar man Seydou gawlo la tuddu def ko bo essué nga jox ma sa tour sa tour deug ak sa tour yaay sa tour papa ñu xol ban moy jàll 24 heures nga wax léegi jox sama tour yaay yeye nar la yeye diko yaay yeye diko sama papa non defal ba pare non yow defal ba pare bu essuwee vingt quatre nga wax may naa la may naa la une semaine naa wàcc kaw suuf su essuwee barki maam Cheikh Rafal ma tëral xaj rey la ci deux minutes nag laa la wax deux minutes man deux minutes laa wax yow bu essuwee nga pare na ma mënta ne deux minutes ma tëral xaj rey la soo wéetee li may wax jëlal tur bindal <laughs> bindal parce que yow mu mottal sama yow tànn la yow mottal mooy. eh yow mu mottal ay sangara tey ay sangara. waaw mënoo. jërëjëf sama xol day sax ngay këppal sangara ban. non man sama xol day sax amul buy tuux foofu. danaa la këppal ay sangara tey. alma alma al xaaral ma woon la xaaral ma woon la dégg nga. xaaral ma woon la. jàng yéen yéen xam nga la ma problème man maay sa doom. nee nga nee nga tudd sama papa nga wala waxoo loolu. wala waxo lool yow sorcier da la sax ana sorcier sama papa nga eh sama papa nga n'est-ce pas da ko am lo wax ak mom parce que boy bi yeen boy bi dafa ñew dafa ñew indil leen deug ta ngeen xam ko pare deug sen tank gis nga deug neexul mais mais kilifa gi mais kilifa gi kilifa gi attaqué ma kenn dëgg neexul yow dama xam yow boo géré ak man da ngay barki maam cheikh rafal laa la wax man caaxaanuma man dama la wax lu leer xoolal xale bu ndaw laa gis nga nii laay bàyyi sama bëgg maa ngi nii man ñoddiw ma rek man ñoddiw ay affaire fii sol ay ngandi dara ay lii xoolal nii laa mel nii maa ngi nii bu la neexee balaa 24 heures sama bagage yi ma yor bagage yi ma yor yëpp a ngi fii bu la neexee ma tàllam bi wala bagage yëpp nee nga yor nga fitis léegi kunkaane nan li ñuy nuyoo fitis jalaa nan lañ koy nuyoo ah yow mii dem tilleen nag yow man su ma jëndee morso boo xam xëy yow xanaa tilleen kon jeex na man ngay waxal de père xool ma yow da nga yow xool rus nga maa sax xool xool ma père xool ma ay eh, xool ma. lan dina lan. déggoo tubaab dégg bu déggul tubaab. waxa kan moo tubaab man. <laughs> yow instant yii da nga kaay yow da nga neex yow di ko war a eh ba ba génn leen waay génn génn génn. takuroni basidur takama ani nakama fakili kumba ani fakili duba sijiri ni jamjame kulu sunatigi bamba wartigi bamba dasoxo karamoko so karamoko ñenama bamba jigi karamoko mo beyan aw be ya fanjum abe ya fanjum ay da soni ko ko jinne jinne sigi moko sigi jinne sigi moko sigi ko jiitu mo bala bala sabali bala kulibali na musa na barama non ko foro koro koro kaju na wulle ma na wulle ba ko jinne farima setane farima moko nya dina moko nya pat dina suma karamunda suma karandu ba ko doso dina ba wemba dina ba soma dina ba doma dina ba bu nekkee bamba jigi la nga ne suna tigi bamba jigi wari tigi bamba jigi bama yiita ñii ki mi yiita bama yii balaa ñii ki mi balaa naa foro walla ani baforo walla jufro zone yi jafra zan bamba jigi bu nekkee trophée balaa la nga ne suna tigi trophée balaa na daw na kii dafa kii dafa daw